gis nga fàttaliku dafa am solo parce que dafay tax nga xam li nga xam ne moo xew tey nga xam fu mu jógee racine bi fan la. Mm-hmm. te buñ fàttalikuwul rek daanaka li xew tey mun na bett ñenn ñi nga xam ne xëy na taarix bi xamuñ ko mais koo xam ni yow da nga dugg ci bureau de vote ñu wax ne maanaam règle lii la lii lañ war a voté yow nga ñëw nga forcé nga voté sans carte kooku. def naa bu ñu nee démocrate na. kan moo def loolu président Macky Sall. bu ñu nee démocrate na. loolu kañ la bu ñu nee démocrate na il l'a fait ah loolu fàttali bu bàyyi rek. nee démocrate na <laughs> c'est quand il était PM je pense. bu nee démocrate na yow di nga ci am ay jiifi hmm. jaaxa. koo xamante ne nii ay décisions yoo xam ne c'est des décision de justice. Hmm. yoo xam ne lu mel ni cour suprême jël décision ministre de tutelle bi nga xamante ne nii je peux je peux le nommer Serigne Mbaye hmm. en l'occurrence bu contentieux bi ko ja boole woon ak enseignants yi. cour suprême dafa délibéré mu mu teg tànkam ci délibération wu cour suprême mm-hmm. boobu ñaar donc juge bi nga xamante ni mooy Sabassi bu defee moom tamit bu rendre décision de justice am ñu bañ ko exécuter warul jaaxal nit ñi loolu mooy ñett ñeenteel bi président boo xamante ne nii avant élection yi la sa premier ministre nekk de surcroît sa directeur de campagne wax ni candidat yi du ñu weesu cinq bi ngeen tegee parrainage bi ñu ñëw ñu am cinq candidats avant élection yi di jot mu jox joxe pour pourcentage bi dem na ba joxe pour pourcentage bi nga xam ne moom la ñuy pour pourcentage boobu bi mu ñëwee bi ñu wàññee xob yi loolu moo fa am. loolu ça signifie quoi selon vous. waaw maa ngi ñëw rek damay damay def damay def taarix. pour hmm. won la ni ne yëf yi fi mu jógee racine bi léegi bu ko defee boo gisee euh, li nga xam ne moo xew tey du ñu jaaxal donc loolu bu bu xewee ci ci benn réew ci benn régime buñ nee dina dina dina def démocratie wala dina. teg li nga xamante ne nii mooy réglement yoo xam ne jaar na yoon daf ñuy bett en tout cas ñun dinañu jaaxal koo xam ne da ngay ñëw choisir opposition bi nga xamante ni yow moom ngay demal élection te defe naa gis nañ ko candidat bu mel ni président koo xam ne la mënuñ ko mënuñ ko bañ bañ a ci ci élection présidentielle bii ñu jëm parce que moom moom la ñuy wax léegi li waral juge Sabassi joxe joxe décision de justice ñu bañ na duñ ko jox fiche de parrainage am ba ki nga xamante nii mooy moo nekkoon Sénat muy doyen Ndiir nga xam ni daanaka icône la ci Sénat parce que dafa wax ne nañ ko jox ay fiche de parrainage am ñu jëlee ko fa dàq ko indi fa keneen koo xam ne cour suprême euh, conseil constitutionnel la ne woon te ñi nga xam ne ñoo jàng justice ñoo jàng droit daanaka nee nañ falin boobu sax warta warta am ci yoon normalement décret boobu nañ ko war a attaqué te def naa li nga xam ne moo ci war ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko war a def nañ ko ci def. mais quand vous dites que Daouda Ndir dañ ko Doudou na vous demandiez que ñu changé waaw mais mais loolu yàgg na fi ñoo ñoo xamante ni seen ay mandat jeex na bu yàgg parce que fii lañu gis ay ay ay juges yu ñu yokk seen seen année de retraite pour lan ñoo xamante ni seen ay mandat jeex na Doudou Ndir am donte jeexoon na bu yàgg. Mhm. mais mënoon nañ ko bàyyi mu continuer. parce waaw parce moom moo ko moo ko entamé boobu léegi. Mhm. parce que lii nii du tombé waral ay gaaf du tombé li mu li mu génn bu bu noppi woon def ni nit ñi di def ne tekk tëj gémmiñam def naan lii du ko ci fekk te loolu li muy wone mooy li ñu wax sànq rek que président Macky Sall ci loolu la ne